jëlee nañu ci ibn masud yàlla na ko yàlla gërëm mu wax yonentub yàlla bi yàlla na ko yàlla dolli xéewal te muccal ko moo wax du dagan deretu nit kuy jullit dul benn ci ñett ku sangew ba noppi njaaloo ak ku rey bakkan ak aji bàyyi diineem di teqale mbooloo jullit ñi buxaari yu ak muslim ñoo ko nettali